leen li ngeen daan wuysee ku fa dem texe nga bu wóoroore sëñ Bamba ko wax bis bi le mooy sama bis te moom laay woote mooy sama bis fa yàlla bu leen ko wuute bis bi la mooy sama bis te moom laay woote mooy sama bis fa yàlla bu leen ko wuute Seexul Xadim nee na na ñëpp sant la ma yàlla sunu boroom ci tukki gii ma tukki woon ba yàlla jox ma sërice bi mu ma jox sama dem ak sama dikkaat lépp dama cee am ngërëmal sa boroom ijaru jooy daa wax ni yàlla sama dellu ci dëkk ba nga def muy tex ak waa bi جرجوي إلى قوم سادتنا والتكفنا يوم جمع خلق ngay mujjé jërëjëf jërëjëf am nañ mhm. mhm. waaw waaw mooy li ma wax léegi rek bés bii di bisu mbégte ndax def dara saa borom dimbil la ba nga fekkewaat déwén doy nag cant am na ku naal dara daaw te fekkewaatu déwén kon ku borom may sutura ba nga fekkewaat déwén doy na ak cant rawatina bi muy del si at mi bi muy del si waat mu dugg ci biir safar gi kon loolu mooy mbir yi day gën a barkeel day gën a dox. nun nag noo ngi leen di ñaanal ci dara ji sëñ Tuubaa ak màggal gi ak weeru safar wii nga xamante ne bii bi at mi desi daa dugg ci biir gi dugg ci biir gi yàlla na ngeen ko féete téeméeri at yu ànd ak wér ànd ak kattan ci dara ji Seexul Xadim ndax euh, bàkkan li ma ko waxee léegi day nit ku baax di suñu wóllëre suñu xarit doon koomuk taalibe doon ku bëgg sëriñ bi moom nag mbiram ak sëñ Tuubaa amul hasard ndax ni mbir bisam bii ci biir ci biir safar gi moo lay xamal ni gëm gi gëm sëñ Tuubaa dëgg la moo tax yàlla na ko sëñ bi taxaw te taxaw mbooleem ku fi nekk rek suñu borom yokku leen te yokkaale mbooleem ku fi nekk ak sax ku fi nekkul fii rek te ci réew mi yàlla na sa mbir doxaale ci dara ji yonent yàlla moom it jërëjëf merci jërëjëf